assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi xam naa kàdduy nuyoo rekk lay doon ñu nuyu ko suñu sëriñ yu tedd yii fa tabaarakallaahu gannaaw bi ñu nuyoo aalu beyti nabi yi toog di sorafaa yi ñu nuyu suñu sëriñ yu tedd yii fa tabaarakallaahu jaare ko ci sëriñ mbay si abdul aziz dabbaax ataana allahu baqaahu wa nassarahu wa ayyadahu nuyu mboolem njabootu maam seydil xaaji maalik ak mboolem jullit bu ñëw ci tànt bi ziyaar ñépp nuyu sëriñ siidi ahmad si ak mboolem ay kilifaam ak i rakkam yépp nuyu sëriñ Abdoul Aziz Mbaye ak ñi mu àndal yépp fa tabarakallahu jaar ko ci bay xaaji Mansour ak xaaji daaw góor xam naa des na tuuti bu ma ñëwatee gàmmu gu sëriñ mbay mu baax mii nekk damay seet benn haut-parleur rek ma muuru toog ca wet ga ndax mbaa xam la bayka ah jërëjëf si nee dama ñaanal sëriñam moo ci def lii waaw waaw waaw lii mu bëgg nee moom it da koo bëgg moo ci def lii kon dafa mel ni bu doon ni mat su football la góor ñi dugal nañu ñaar jigéen ñi zéro ma ni des na tuuti bu ma ñëwee ci gàmm bu ma séenee sëriñ fa tabaarakallaahu damay seet benn haut rek ma muuru làqatu fa di dëglu ndax dañuy ñëw ci moom ngir jàng waaye gis nañu ni saa bu ñu ñëwee ci gàmmu gis nañu ni ah. saay bu ñu ñëwee ci gàmmu fekk ko ca gàmmu ga ci mbaaxam ci mbaaxam dina tax dina fexe ba la ñépp bëggoon mu wax ko mu dagg ko ngir ni na sama sang bii waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo damay laaj ndax li fi sëriñ doon wax dafa génn yonent bi génn ko de te muy suñu sëriñ di ñu jàngal ba tey fa tabaarakallaahu te bu ñu ñëwee rek occasion bi ñu am pour jàng mooy gàmmu fekk ko muy wax ñu làqatu di ko déglu ñuy bind li ñu mën a jàpp ñu jàpp ko bu ñu demee fu mu nekkul yóbbu ko fa mooy tari ko fa waaye mbaa tax na bu ñu gisee du nangoo wax kon nag ñun fi ñuy mujj mooy bu ñu ñëwee di làqatu waaye xanaa rek comme dafa joxe ndigal sëriñ ñu ngi ànd sa doomu baay sa taalibe xaaji Abdallahi Fall comme ni ñu koy defee saa su ne ni nañu wax dara rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngir ndigal loolu mu joxe rek ñu def ko muy suñu tarbiya gars fii fan la jag saaw fii mooy Fass Jaksaaw ñun xam nañu ni li ñuy tudde crème am na lu ñuy tudde crème ci soow moo ci gën a pire bu doon ni Sénégal am na crème bu fi ne dañu naan crème senegal Sénégal yépp ñi ci jaar ci loxo maam Seydil Haaji Malick radiyallahu taala anhu fii la leen maam Haaji Malick tàggate tas leen ci dëkk bi ñoomit it ñuy segg di génney crème ca fañu ne mbaay man nga ma bàyyi wala manoo maa bàyyi duma so moom rabbi jaal qaryatana hada naim jasaada bihibbika alkarim rabbi jaal qaryatana rabbi jaal qaryatana hada naim mm-hmm. jagsaaw Abdoul Aziz fii maam Seydil Hadji Malick dama ne ci muqaddima rek baal taxawal noonu rek bul toog waaw maam Seydil Hadji fii crée mu fii la leen dajale defar leen ba ñoom ñépp ñu doon kereem mu tas leen ñii jolof ñii waalo ñii kajoor ñii feneen ñii feneen ku ne ci ñoom di segg kereem ba kereem yi tas tey mais loolu nu mu ko defee dëkk bii wala boo kër gii di kër maam Seydi Hadji Malick wala boog tariqa bi di tariqa cheikhuna tijaani sharif wala boog diine ji di diine yàlla subhaanahu wa taala diine la joo xam ni kenn mënu ko avancer te jàngoo li ma bëgg a wax mooy Sénégal léegi bari nañu génn foo génne rek Sénégal bari nañu génn ni ñun daal sëriñ lañu jànguñu dara feruñu it ji mënuñoo liir waaye dañuy defare te rasulillahi li waral maam Seydaaji Malick bi mu jógee li mu jëkk a wax mooy ala ya bani hada zamani daawtukum li iyaai diini eh, ala mooy waawee ndax yëgoo ma yëgal la mag ñi ne ko déedéet si looy bëgg a mu ne yéen lay waxal de yéen ñi ma bokkal jamono ñu ni ko Maodo lu xew mu ni kaay leen ñu dundal diine ñu ni ko lu ñu koy dundale mu ni xam-xam rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni afatu diini salaasa ñetta ngi nii yoo xam ni bu lislaam doonoon sër bu weex dañu naan am na ñetti taas yu ci am taas mooy takk-takk am na ñett yoo xam ni diine lislaam bu doonoon benn sër bu weex daga naan am na ñetti takk-takk yu mu takk yoo xam ni boo ko ci gisee rek taas la fexee la dindi bi jiitu mooy faqiihun faajirun boroom xam-xam bu saay-saay xam nga lu tax boroom xam-xam bu jàngee boo jàngee am nga xam-xam donte nee nañu inna alladi Serigne Touba nee na inna alladi lam yaxsha rabbal alamina laysa bi aalimin ñu ni ko foo sukkandiku mu ni borom bee ni innama yaxsha allaha min ibadihi lulama waaye boo jàngee lu bëree bëri te juboo da ngay mën a def lu la neex boo ko defee ba pare layal ko gisu bu yàggul monument bii ci ndakaaru bis bi ñu dajalee ay boroomi xam-xam ña fa toogoon ñépp jàng waaye bi ñuy ñëwee ngir saxal ko ñuy ñëw ngir weddi ko bu ñuy indee aayaa ki xadis taree tari ba ni araam na ñuy indi aayaa ki xadis tari ba ni dagan na yow mi xamul dara da ngay am problème ku ci wax dënk ku mujjee wax rek nga ni moom moo wax dëgg faqihun faajirun bokk na ci taas gàkk yi nga xam ni moo ne ci diina ji mooy ñi bëgg doon ay mufti di ubbee ci télé yeeg rajo yeeg daayira yeeg fépp tudd daal sëriñ te doon ay kàccoor muy benn Abdou damay def mu xaddima rek maa ngi ñëw ci yow bu ñaareel bi nabi ne bokk na ci gàkki diine ñett yi nga xam ni tâche la ci diine ji bu ñaareel bi mooy imaamun jaa'irun njiit lu jeng Sénégal poroblème bi ñu am xam ngeen lu ñu ko yóbbe mooy suñu njiit yi ñooy sàcc yi déggu leen ma de fii laa ko waxee ci jagsaaw fii fii ci Fass jagsaaw fii maa ko wax nag fii laa ko waxe ci kanamu sëriñ yi tamit laa ko waxe mooy ñi jiitu ñu dénk leen keesi réew mi mais ñooy sàcc yi mais bu ñu demee bëgg ñi ñu dénk kees yi yaakaar leen ci réew mi ngir ñu defar réew mi ñuy sàcc xaalisu réew mi fu réew mi di amee dara maam Abdou imaamun jaa'irun yonent bi ni gàkku diine ñaareel bi mooy njiit loo xam ne jubul mais bu ñu demee ba Sénégal senegal ay nit yu taxaw ñu dénk leen xaalisu réew mi bi ñu leen di dénk xaalisu réew mi yore yorewuñu million bu bokk benn buum ñu dem ay fan rek wala ay weer rek wala ay at rek daat ni yore nañu nangami milliard fu ñu ko jële mel ni rek ba ma àndeek sama waaja Abdou dama ànd ak sama benn mbokk waykat ñu dem waxtaani xaw na yàgg xam nga ndonga daara rek day am ak kàccoor ñu dem ci benn nganale màkka ñu waxtaan ci nganale gi nag bu ñu bu may wax muy woy lu ñu ma jox damay denc lu ñu ko jox mu denc bu ñu paree dañuy jël lépp séddoo ci digg bi ñu dem benn nganale li ñu ma jox ëpp li ñu ko jox ma bëgg koo wor woo di waaj a génne ni ko taxawal dama ko fàtte woon amoon naa vingt mille sama poos nëgal ma génne ko mu ni ma mani ni ngay dugal nga ko waroon a wax te wax na dëgg booba ay jamono la woon waaye wax na dëgg booba nag vingt mille newul ci poos bi waaye comme maa koo pële bëgguma ñu séddoo maa jiite waaye maa bëgg a wane ak njubadi kon imaamun jaa'irun bokk na ci gàkki diine njiit lu jeng bu ñetteel bi bokk na ci gàkk yi nga xam ni ñoo paralysé diine ji mooy mujtahidun jaahilun nabi nii kuy góorgóorlu di julli rek di woor rek di jéem a def lu baax daal mu ngi ci waaye xamul dara jàngoo dara aarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduuni boo jëmee jagsaaw da ngay ànd ak ko xam jagsaaw baa nga laajte fan la yoonu jagsaaw ne ñu wan la ko boo xamul fu jagsaaw ne boo ñëwee ba pir nga kilomètre gauche jàdd génn ji àndolaay ngay def waaye doo ñëw jagsaaw suñu borom ne mam xaadima jaxate kala dafa toog benn bis góor gu baax googu tëdd benn taalibe bu ko bëgg lool ñëw di ko bës di bës maam xaali ndekete maam xaali am na benn taab taalibe bi léeg-léeg rek mu jàpp ci taab bi bës di bës rek maam xaali di onk waaye du ñi mee wax ndax nee na teraanga ji may defal bëgguma ko wax yaa ngi may gaañ muy rus nee na waa ji di ma bës di ma bës ba yàgg taab bi toj deret ji tàmbali génn waa ji ni ma i eh, sëñ bi nekk te dangaa ngaa taab ma ne ko defoo dara mu sëñ bi mënuma ko woon a wax mu ni dama la koy bañ wax nga rus waa sëñ bi lu tax mu ne ko coow li yépp mooy dangaa xamul li ne ci man tey wut lu ma neex mu ne ko waaye yow lii nga ma def garaawul xam nga fan laa ragal mooy ñi jëm ci yàlla di wut lu neex yàlla te xamuñu li yàlla bëgg ak li yàlla bañ bari na lu ñu xuus rek nekk ca fekk mbugalum yàlla rek moo leen tey fekk waaye duñ ci am dara yàlla xaaral ali fas aloo nabi ne mujtahidun jaayilun jàngoo ba pare di góorgóorlu gaay léegi nag bari na maa ngi ñëw Abdou ci yow laa jëm ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag loolu bari na xam nga mooy lan dañu imam Maodo Sylla yàlla na ko yàlla yërëm dafa génn àdduna julli gi njëkk mu am imam bu bees bu ñuy wax Ali Moussa sàmb mu jiite bi mu jiitee julli ñu dem ba boori ngoon heure bi ñuy baaloon baaloonte àq ma seeti sama benn waay joo xam ni sëriñ la lu tax ma ni sëriñ la mooy ci njabootu sëriñ la bokk ñu toog di waxtaan ba mu yàgg mu ne ma ndakaaru am nañu imam de léegi ma ne ko aha mu ni ma wuu imam bu ne jiite na fi waaye bii mësu fi am ma ne ko lu tax mu ni ma saar yi ma dégg mu di ko tari saar yu roqee noonu ba ma nekkee Sénégal ba tey masumaa dégg sëriñ bu ko tari ma ne ko waaw yan saar la tari mu ne ma wow saar yu roqe man kay mënuma la ko expliquer ma ne ko saar bi ban la amul dara loo ci jàpp mu ni ma waaw jàpp naa ci daal mu wax ay xee wee lee yooyu daal laa ci jàpp ma ni ko est-ce que du sabbih isma rabbika laale alladi fa sawwee walladi qaddara fa hadee mu ni ma saar baa ngoog mais foo ko xamee ma ni ko man ma bokk ci gaa ci ruq bi mbokki julit yi à suivre wasalaamu aleykum wa wa barakatuhu sëriñ bi ñaanal jërëjëf